internet ñi ngi am bekté kontante di jakarlo ak yéen saa su ñu leen di toppal kooru mbër a ah, tay nak ñu dugg ci balé bi doxantu bir Kër Massar ñoo fekk fi ben xalé bo xamanteni espoir la ci walu lamb muy Boy Seye numéro 2 ñukay wax le lion de Kër Massar bu béré mu neex bu bako mu neex tay nak euh, muy def ay ndogu a ah, presse bi yépp daal di ñew fas yéenee couvrir ndogu bi ndax néna la wéru koor nekk na lo xamanteni ni tay a ah, nga ci def lu baax dafa nekk lu am solo waye néna la sa yo gisé Boy Seye numéro 2 bo gesso di nga gis ki nga xamanteni moom mooy saa bokkal doomu ndey Eumeu Sène ndax ñoom ñaar yaakaar naa ni guddi laak bëccëg amul benn waxtu boo xamante ni dox na ci diggante bi ñuy def ndogu ñoom ñaar ànd ci mu nekk loo xamante lu am am solo la waaye dañoo ñëw fekk fi koo xamante ni muy président Gana Kebe kenn dootu ko présenté ci social kenn dootu ko présenté ci lu baax muy Kër masaar noor Kër Massar Sud ba li wër Kër Massar yëpp turam yegg na foo xamante ni sax tànkam tegaru fa ngir lu baax li nga xamante ni mi ngi koy def ci réew mi nee ko njëkkeewu ko rek ci weeru koor même bu dul sax ci inondation yi ci jàkka yi ci jumaa yi mi ngi jàppale néew di doole kon bu ñëwee fii fekk ko fi rek balaa mi dem faaw ñu dégg ko suñu micro président lay ziar. ñu ngi lay ñu bu baax a ñu ngi ngi ci jàmm sant yàlla bu baax ñu ngi ci yow ñu ngi ci yow. yaa ngi ci kaw walaay ndeysaan ñu ngi ci kaw. ñu def benn 100 mètres fii maa yow eh, <laughs> man ab ah, warkat laa nag. warkat laa bu baax <laughs> melni ci yu melni du guléet sax ñu fekk la ci ci mhm. conférence yak ci mbër yi nga xamanteni ñi ngi Kër Massar lu way di def rek ñu gis sa loxo mi ngi fi lan mo wara sa téwa wa d'abord dañuy sant yalla bu baax parce que tay mom dafa ñu ngi ci wéru koor wér bu macha allah weer bu barké tay bu ñu ñëwé fi ah moy dañ fay ñëw ndax boy sey dañ fay ñëw pour saabo xal dañ fay ñëw tamit euh, ah, euh, papje dañ fay ñëw pour xalé yi parce que ku xam mam Gana Kébé xamné bon mom mëna wax ni Kër Massar fépp fu ay jeune woote wala ay xale fu ñu fa woote rek da nga fa gis maam Gana Kebe mu jekk mu jaadu ah ñoom ñu waxoon ma ko ma bàyyi yitte yëpp ñëw pour gën a mën a jëmmal bis bi moo tax ma ñëw fi tey jii. mu nekk lu am solo tey mbër nga xam ni dafa bëri pour bi booy say numéro 2 buy bëre Kër Massar coow lu bari sa bokkal buy bëre Kër Massar coow lu bari buñ créé initiative bi juste que pour baalo waale ak tamit dëkkandoo yaakaar naa lu rafet. waaw macha allah rafet na trop parce que xam nga ñoom ah, yàlla dafa dogal waa Kër Massar ñoo leen bëgg yàlla dafa dogal xale yi ñu leen bëgg yàlla dafa dogal mooy Kër Masaar yëpp xool muy Boy Sey muy euh, saa bokkal wax dëgg yàlla yàlla dafa dogal xale yi dañ leen bëgg rawatina man mi nga xam ne ah man samay samay xale lañ samay nit lañ samay mbër lañ parce que nee naa yax yaakaar naa wax naa ko ci ay émission yu bari bu ñu nee mbër Kër Masaar moom saa bokkal nga may waxal wala Boy Sey loolu moom nëbb ma ko fenn parce que loolu la yàlla dogal parce que ay xale la yoo xam ne fépp fu ma nekk dañ fay nekk lépp lu ma leen yabal dañ dem defal defal defal ma ko ñëw toogaat soo amee xale yu mel noonu nag ah lépp lu ñu yëngu nag da nga bëgg ànd ak ñoom yëngu ko ak moom te ñii moom wax dëgg yàlla dañ leen di ñaanal aussi di wax nag ah, promoteurs yi xam naa du ñàkk dañ ñu ngi suivre scène bi di wax nag ah képp ko boole seen nga mooy képp koo xamante ni bëgg nga jël drapeau tuddee ko Gana Kebe faaw nga jukki fi mbër boo xamante dëkk na Kër moo xam muy Boy Seye numéro 2 moo xam muy saa bokkal moo xam muy beneen waaw parce que tamit xam nga dafa di rek euh, euh, ñoom buñ fi dekkee ci dëkk bi nekk ci gox bi fii ah Kër Massar yëpp di leen sagoo xale yi aussi bëgg leen te xale yi aussi tamit man damay ànd ak xale yi aussi dama bëgg xale yi aussi bëgg Kër Massar bi nga xam ne man maa dëkk su loolu amee ah man dootu ma bëgg dootu ma bëgg ah ñu may yóbbu dina ne diw mooy parrain te du ma gis waa Kër Massar loolu nag ah wax naa ko bu yàggul def naa benn chaîne di rek ko fàttali parce que dama doon wax ni dafa ma bëgg a tëggaat ak ab làmb man ko nag boo bëggee làmb bi neex danga nga may tëggal samay nit samay xale ñi nga xam ne wax dëgg yàlla fu ma nekk ñoom dañ fay nekk ak lu ma bëgg dañ koy bëgg moo tax loolu moom dama koy lancé dama koy toujours maa ngi koy lancé nag xam naa ne loolu tax booba tey promoteur yi <laughs> ñëwaguñ wala xëy na ñu ngi dem waxtaan ak xale yi xëy naa ne wax ji des na mais daal bëgg naa daal bëgg naa dëkk bi bëkk bi nag boo ko bëggee da ngay bëgg waa dëkk bi te ku bëgg waa dëkk bi il faut nga bëgg Boy Seye il faut nga bëgg saa Xal rawatina Pape Dieng bi nga xam ne gis nga woo moom chaque jour mu ngi créer rek luy dajale luy boole façon nit yu am valeur yooyu façon nit yooyu boo leen gisee ah da nga leen di bëgg parce que dañoo bëgg dëkk bi nga bëgg bi nga bëgg waaw xaalis moom toir kàlla moom moom moom moom dégg naa la ngay sànni mais xaalis am naa ni koor gi jàpp na la mais dafa am benn question bu may laaj rek ñëpp sa yéene ci Kër Massar mooy nekk fi loolu xam nañ moom mooy sa yéene ba tax na sax ba nga toogee sa kër yam ci social nit ñi ñoo la génne sa biir kër ne dañoo bëgg force nga nekk meeru kër massar parce que njariñ gi nga amal askan bi dafa jot tay pour nga nekk ci kanam pour doxal ambition yi mi ngi fi euh, xaxel mi mi ngi fi xam-xam gi mi ngi fi ñi nga xamante dañoo toog di la xaar yow kese pour say activité pour and ak yow di wax bon ñi toog parce que ñun def naa lii euh, bu ma jógee fii am na yeneen bërëb xam ne dama fa dem yoo xam ne mën naa xam mouvement bi nga xam ne man maa ci dem muy faj bébétu askan bi ñoo fa kon ñi toog affaire am na ñoo xam ne xëy na ñi toog te suivre ñu xam naa à part d'aujourd'hui ñii dañ la suivre pour ñu mën a xam waa faj jawut askan bi ci lan lañ nekk parce que boo xoolee tey jii rek lu mu gàtt-gàtt xam naa ne am na quatre à cinq pénc yoo xam ne waa faj mbébétu askan bi ñoo ko organisé di fa joxe ay ndogu aussi di fa jàppale aussi di fa joxe ay sukkaru koor kon faj mbébétu askan bi nga xam ne mooy mouvement bi nga xam ne maam Gana Kaye moo ko jiitu ah ñu parce que ñun duñu xaar action bu xew ci jamono rek ñun day ànd action parce que boo xoolee jamono ñu toll nii ay ndogu moo moo moo xew aussi jàppale aussi population bi parce que ndogu certes koor mooy koor mais après koor dafa am beneen bis boo xam ne ñun ñëpp dañ ko fonk muy korité te dañ ci faral di bégal ay njaboot ba xoolee am na ñu nepp topp di def ci koor gi mais am na ñoo xam ne mouvement bi ñoo xam ne ñoom nu ñu def ba fête bi bel fête bi rafet fête bi ñëpp maanaam li ñuy xaar ci fête bi ñu jot ci am na ñoo xam ne ñu ngi sur le terrain moo tax faj mbébétu askan bi yaa ngi wax maire mais ñun bi ñu faloo maire dafa yàgg waaw xëy na nag bâtiment bi nga may wax mais maire xam nga maire mooy ki jege population bi rek maire mooy ki dimbale kii bi maire mooy kuy defar ci ci cité bi moo tax ah ah oh, oh, mën naa wax lu ëpp ay at nit ñaa ngi may nit ñaa ngi may dégg ñu ngi may suivre maa ngi ci biir population yi kon loolu mooy maire <laughs> waaw loolu mooy maire léegi nag bâtiment bi xëy na kañ la ñuy kañ la ñuy jox bâtiment bi waaye daxal ñu ndomba taam gi pour ñu gën a mën a defar projet yu mag yi mais loolu njort nañ ni rek

kon ñoom teel nañu comprendre ne dëkk bi daal xale yi ñoom ñoo ko yor xale yi nag boo man dama am yaakaar trop ci xale yu Kër Massar parce que boo xoolee jafe-jafe yi bari bari bari yëpp ah bi ñu amee taxawaay bu yàggul rek génn ci télé bi ne bëggatuñ li am fi rek xale yi dañoo am taxawaay bu mag buñ ci am parce que ñoom ñëpp comprendre nañ ne nekkul ñoom ñooy yàq Kër Massar ay nit ñooy jógee ailleurs ñëw di yàq Kër Massar loolu nag soo amee jeunesse bu mel noonu aussi jeunesse bu conscient boo leen xale yi bu mu leen léegi sama xol dafa dafa set parce que xam-xam la ñu euh, organiser na benn organique boo xam ne ku leen joxoon tey ji ab commune sax ñu doxal ko loolu nag boo ko amee ci sa gox sa xel dafay dal parce que njort na tey ji boo jëloon rek boo àndeek ñoom li nga bëgg yëpp da koy am moo tax daal dañuy ñaan yàlla ci Kër Massar parce que comme dañooy soog am département bu bees dañuy ñaan yàlla département bi ñu ànd ak ba mu nekk bañ a nekk coquille vide coqueville ça veut dire mooy ñu ay ñu amul xam-xam wala ñu déggul jiite ko mais xale yi ma gis ku andang ak ñoom ci suñu nouveau département bi bàyyi leen xel da nga gis lu doy ak euh, mën nañu wax ni ay at ñu jëm ci waaw am na solo ndax nee la du la teelu yàgg ndax kuy raam di la yóbbu su amee fi bàyyi dama lay bàyyi nga tàggatoog mbokk presse bi rek ak li ngay ñaax booy say numéro 2 ak saa bokkal ak pap su ko defee ñu bàyyi la nga wéyal yeneen programme ndax am na ñu lay xaar wallaay ndeysaan xanaa rek di nuyu suñu mbokk mbokk internet yeeg euh, presse yi nga ñoo fi aussi di leen kontaane bu baax parce que ñii wax dëgg yàlla kenn amul seen fay parce que lépp looy toog ci bërëb di ko gis di ko dégg rek ñoom la kon ñii wax dëgg yàlla dañ leen di ñaanal ni Kër Massar fas yéene màggee ku ci nekk organe ba nga yor yàlla dogal fi ak ñu egsiwaat fii déwén ku ci nekk ñu wax sa télé bi wala sa rajo bi yaa ko géré te yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def en tout cas di sant namit mën na wax ni Kër ma saar yëpp aussi di sant xale yi nga xam ne ñoo organiser lii parce muy euh, Sabokal muy Papa Gueye muy jeunesse yi nga xam ne ñoo ko organisé dañuy ñaanal yàlla parce que lii dafa war a yaatu parce que tey jii li ñuy def buñ ko xeeb parce que am na ko xam ne mu ngi toog fii yàlla xam ne teewul lu mu dogoo mu ngi xaar ñu ne allahu akbar ñu sër ko benn benn morso mu jël ko dugal ko ci gémmiñam kooku xamuma tiyaaba yi fu mu tool kon dañuy ñaan yàlla ah ñaanal xale yi ñaanal ñi xam ne ñoo organisé aussi ñaanal Kër Massar aussi di bàyyiloo Kër Massar xel suñu amee ay nit dañ leen di jàpp ñii mbër yi suñuy mbër lañ képp suñu amatee combat ñëpp dañoo war a jàppale leen parce que suñu Kër Massar drapeau Kër Massar la ñuy jël di ko génnee drapeau Kër Massar nag boo bëggee Kër Massar soo bëggee soo drapeau Kër Massar génnee da nga koy jàppale ka ko génnee di ko ñaanal yàlla mu génn ñëw indaaleeg ak ndam di wax ni xale yi ni ko organisé nii nañ koy continuer ku aye wala ku moomee rek bu wootee ne ñëpp génn jàppale ko ci bisam bu kew ay eh, ñu jàppale ko en tout cas ma ngi leen di kontaane bu baax di am mbégte bu rëy rek di leen balu ak nak aussi di leen bal ak di ñaan yalla nak déwén nañ te te bu ngeen leen gëna yaatu ba ndoom ma tànk yi ngeen ngeen indi ndoom ma tànk indi ndoom ma tànk yàlla mën nako yalla nako yalla def en tout cas kontaan nag online ndeysaan jërëjëf ndeysaan ay jambar lañ quoi ci lamb ji lañ nekk dama bëgg nak di dans quelque temps nga recevoir leen ñom ñi nga xamne ñofi tew ni nga recevoir leen jappale leen si korité bi waaw lool moom man ma la ko sass wa yaakaar la nañ ko parce que ñoom ñoom suma nit lañ parce que bu ñu gisee li ñu njëkk ana ana ana lañ leen laaj xëy am na lu tax ñu leen di laaj Gana euh, Gana Kebe loolu nga wax noonu mbébét la parce que comme ñun ñoy fajj mbébétu askan bi bo leen joxee ab mbébét dañuy jël mbébét bi ñu xol nan lañ koy fajjal sa sa incha allah do nga garé sa auto sax hmm. sol say dal place yi di dugg ci mbënd meeg inondation fi lañu fekk juma yi nga xamanteni ma ngay xolé ko une tonne ciment yeeg fer yëpp nga fa yobbu te sax do fa dem ngir ñu bëgg xamni sax yow ya ko def des fois sax do bëgg ku ko wax way dafa jaaru ñu melni yow di def lu baax ci réew mi ñu koy fësal ngir ñi nga xamanteni ñi ngi yor lo xam ñoo la ëppalé sax ñi mëna roy ci yow en tout cas bu yéen bu ngeen ci jappé rek ñu liñ bëgg ci wax bi fay am parce que xamna ni ah bëgg Kër Massar moo tax ngeen def li def nii man tamit bëgg tax may def li may def nii kon ñun ñëpp bu ñu àndee liñ bëgg dinañ ko am en tout cas leen ciy invité mbir bi waaj joxe nag du moom bu soobee yàlla dañ ko jéem a faj dina am waaw ñu leen jox daj daj rek dootul yàgg te dinañ continuer ànd ak yéen parce que am na ñuy préparé ci mbër parce que koor gi moo xaw a freiné parce que dañoo bëgg wër département wu Kër Massar fépp fu écrit doo toog di ko wax di ko wax rek da ngay dem xool ñoom lan la ñuy dund xam nan la ñuy dundee aussi xam nan lañ leen di jàppale ak ku leen bëgg jàppale parce que certes utal leen combat c'est bien beau mais préparer leen ba suñu amee combat moo ëpp ëpp wax dëgg yàlla duñ yem ci dañ leen bëgg a jàppale rek mais dañuy bëgg parce que koor moo a moo xaw a métti mais su paree dinañ man bokk ak sama mouvement bi ma jiite dinaa déplacé wu écrit bu ci fekk la fa nga fa nga nekk su ma demee boo waxee ma dégg man ma xool lan lañ la mën a jàppale parce que bëgg daal dañoo bëgg am roi des arènes fii ci Kër massa te loolu yaakaar naa ni ànd bi bu rafetee rek moom dañ koy am bu soobee yàlla non dafa wax a nekk yàlla xam na loolu mais xool loolu yàlla xam na loolu yàlla xam na loolu mais loolu lépp li koy tax mais ñàkk ko leen jàppale dëgg la parce que tey jii man su ma nee man en fait su ma bëggee tëgg sama mbër ngay tëgg mais loolu jàppale naa sama mbër bi mais loolu ñii ñii ñiy jël des voisins ñii de ñiy gañe di gañe di gañe yëpp loolu la ñàkku leen jàppale mais daal man moom bu soobee yàlla ah du dina ànd ak yéen ah ñu dem ci mbër yi ñu waxtaan ak ñoom ñu xool leen lañ leen leen di jàppale te loolu bu soobee yàlla dafay am topp yaatu ah maa ngi gën a kontaan booy maa ngi gën a merci beaucoup ah à la prochaine am na solo jërëjëf ayca ayca pap dégg li nga xamante ni yaakaar naa gaa taxaw ni ay ca pap li nga xamanteni euh, ganna ganna ganna wax nako mu nek lo xamanteni lu am solo la ndax yaakaar naa ni mom bo xoolee ci jeunesse bi la bok Boy Seye numéro 2 ak sa bokal def lu ni mel yow nga ñew accompagner len ba tax na Boy Seye sax neena lepp lo xamanteni sax bari na ay jéego yo xam ne yow ya ko ci dox ndax bàyyi wo len ci ñu wéet benn woon li nga xamanteni ganna wax nako ko yaakaar naa nga ko lo ci wax ganna lu mu wax mom ma ngi koy deg parce que soo soo Boy Seye ak sa bokal yalla dafa def dañu nek samay samay way lañ samay bolé parce que man ak ñom dañu nek fi depuis 2013 ñu nekk ci nekk mu rafet ñu def fukki at ba ñoom lu ñuy lu ñuy bëgg a def rek man de suñu ma ci boole man dinaa ci jàpp même bu dul sax même bu nekkul ay programme yi bu ñu boole mais làmb même sax daana am ay combat ma ciy ànd ak moom te boo xoolee fii sax man lu bëri ay combat mi mu doon dem yu bëri daa yàgg naa koo yóbbu muy bëri parce que bi mu fi ñëwee keroog bi muy bëree kii sanganeer kii 5 mai 2013 ala fee ala fee sant kii ama stade Amadou Barry man maa ko yóbbu mais boobu maa sax kii bu ma toog na fi am ay problème mu man maa ko yóbbu ci sëñ Modou Niang ko combat boole ko Boy Thiam combat boobu mi ngi nekk 14 décembre 2013 maa mu daan kii Boy ndigal maa ko yóbbu ñuy bëre ak janvier 2000 2014 maa ko yóbbu même bu muy bëre ak tamit duudu xabi même même moog duudu janvier 2015 maa ko yóbbu boo ko yóbbu keroog mu daan duudu xabi benn combat laa xam ne keroog dama ko yóbbu contact bi muy bëree kii caatu mu daan ko moom li ma na ko boobu joto ji Pape wax ko Gana wax ko yaakaar naa dégg nga. waaw dégg naa ko am na solo ñun nag moom dañoo nekkoon benn groupement bi nga xam ne mu nekk groupement d'action sociale des jeunes bu Grand Médine ñu nekk ay ndaw yoo xamante ne dañoo booloo rek pour def ay action sociale tey nag ñu boo ko Pape benn koñ moom nag amoon nañ suñu première activité muy joxe ay ko comme nii mu daal ñuy jàppale seetaanuñ ci benn yoon looloo waral tey ba ñu woowee pour ñu ñëw jàppale ko teguñ si baat parce que daf ñuy taxaw suñu nëbb ak suñu feeñ te mu nekk suñu grand. kon bu wootee war nañ ko mën a wuy si léegi nag groupement bi am na ay commission ci suuf looloo tax tey bañ ñëwee bañ waree jàppale dañoo jël waa commission waa restauration daal leen yóbbu fële ci waañ ba pour ñu jàppale am na environnement fii am na commission d'organisation lépp pour jàppale Pape ci bésum ci bésu bésu tayam bii mu daal di jaayoon incha allah. bu neexee association bi lan association bi ñu suñu groupement bopp la bi nga xam moo nekk Grand Médine ñu ciy woo bonne volonté yëpp parce que tamit yombul ay ndaw yu dajaloo uniquement pour dajaloo def ay action sociale te mën naa ni duñ ay ndaw ay kàngam lañ parce que ay étudiants ñoo ko compose ak ay élèves te ñooñu ñëpp am na ci ñoo xam ne dañuy dañuy suivre ay environ dañuy suivre ay géographie ñenn kenn ku ci nekk am nga looy suivre te nañ la sa poste loolu nag ñu war ndaw yooyu a mën a a mën a may loxo te bu ñu amee leen bàyyi noonu tamit dañuy leen di jàpp moo tax ñu jël ko moom tamit def ko comme suñu njiit Pape tey mën nañu ñun suñu groupement bi moom moo nekk suñu président parce que gis nañu seetaanuñ benn yoon te Grand Médine ñun ñëpp ñoo ko booleel ku nekk xam na ne Grand Médine empreinte bi mu def ci Kër Massar ci domaine yëpp loolu tax nag ñun ay war a mën a jug marqué suñu empreinte ñun tamit def loo xamante ne ku gis dina ne ñu ay doomu Grand Médine lañ ndax ku ne Grand Médine tam te Kër mooy lépp. kontaan naa la gën a kontaan merci beaucoup <laughs>